intérieur bu assemblée nationale te loolee mënuñu ko nangu tey mënuñu ko nangu ëllëg lii nga xamante ni assemblée nationale doxale nañ ko loolee nag li muy firndeel mooy ñiy faale wuñ kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew waaye tamit faale wuñu askanu Sénégal yéen a kaay gi di réew di cee mu maa ànd sàmm yi ñoom nag nee nañu daal xeex bii nga xam ne sumb nañu ko duñu ci deltu ginnaaw benn yoon te duñu si tàyyi te danañu ko wëyal ñaar fukki fan koy wane waaye nag ñi nga xam ne ñooy waa PDS gis nañu ne deltu nañ ginnaaw bu baax a baax maanaam cëfër ji nga xam ne moo nekkoon ci PDS jamono ji nag gisuñu ko a kaay gii di laas xëy dañu xibaar naan ñu njiitu réew di président Macky Sall ni ki ci conseil des ministres bi daat nay nag sant nag gars nga xam ne ñoom la àndal ci gouvernement bi ngir ñu évaluer ko li nga xam ne mooy élection yi maanaam ñu xaymal ko élection yi a ne mooy

na ñooy waa benn bokk yaakaar ñoo ngi leen di tuumal ne dañoo a sàcc nag benn bokk yaakaar dañu ko daal di raatale Podor moom ak ñi nga xam ne ñoom la àndal razia la ñu def fi nga xam ne mooy Podor maire bu bokki Diallo be foofee nag Abdoulaye Daouda Diallo gagné na ko ak lu ëpp 82 gi di réew mi ko Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu département bu Mbàkke yeewu askan wi ñoo ko gañe ak sëriñ Fallou Mbàkke écart bu mag a mag a mag la ko yeewu askan wi gañe waaye nag fi nga xam ne mooy nag biir Touba biir Touba mooma maanaam voté luñ nag ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi ñooñee ñoo votel Benno Bokk Yaakaar waaye nag ci biir Touba maanaam yeewu askan wi la ñu votel ak li nga xam ne nag mooy bulletin blanc bi moo tax Serigne Fallou Mbàkke jamono ji nag nee na Abdou Lahad Ka ci boppam maire bu Touba moo war a tekki ndombal tànkama ndax bulletin blanc bi ak ni nga xam ne moom la askan wi voté lool dalaleeg firndeel na ne Abdou Lahad jamono ji maanaam gars yi nag bëgguñu ko ndax lu ëpp nag trente-huit mille ñoo voté bulletin blanc bi bu dee nag liste bi Abdou Lahad Ka jiite woon maanaam onze mille ñoo ko voté ba tey ci biir yéen a kaay gi nee fi nga xam ne mooy Grand Yoff foofee tamit yeewu askan wi dafaa gañee lu yaatoo ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar yëmbal nord yeewu askan wi moo ko gañee yëmbal sud yeewu askan wi moo ko gañee Kër Massar nord yeewu askan wi moo ko gañee yéen a kaay gi nee na nag Bokk Yaakaar daat na koy ñàkk a kaay Sara maire sortante bi ca Kaolack moom la ñu tuumal ne moo wax ñu def vote sanction ngir nag Mamadou Ndiaye Rahma bañ a gañe commune bu Kaolack yéene kaay gi di libération xëy dañu xibaar naan ñu Cheikh Bakhoum Cheikh Bakhoum Grand Yoff dóor yi nga xam ne dóor nañ ko Cheikh Bakhoum ci Grand Yoff du ko gaaw fàtte ndax dóor yee metti yéene kaay gi di Vox Populi nee na ci diwaanu Thiès ñi nga xam ne nag ñooy waa yeewu askan wi ñoom ñoo ngi alerté ñoom na maanaam événement mars yi nga xam ne maanaam mooy wala lu ko gën a doy waar ndax nag résultat victoire bi nga xam ne yeeyu am na ko ci diwaanu Thiès du ñu nangu benn yoon du ñu nangu benn yoon maanaam ñuy sàcc li nga xam ne mooy sunuy nag victoire maanaam jar nag ñu tayle nag sunu bakkana yéene kaay gi di réew mi ko di jee bàyyi mbir moomee nag wax ci jàngalekat yi jamono ji jàngalekat yi mer nañ ba maara détaillé ñi nga xam ne ñuy waa CUSEMS ak waa SAEMS ñoom nag nee nañu tey jii ci ji danañu amal ji ñu ñu train